ñeenteel bi danañ ci joxe ay misaal ci borom itte yu kawe yi foofu nag ñu jeexal ci tëjee ko leeral yu gàtt ay ndéggaan ci mujj incha allah ñu tàmbalee ci bay bi barkeeloo ko sëriñ bi wax ne fii ka wa fil muxtaari gayib himmati wa ahliha wa addiman qismati te sëriñ bi di ñaan suñu borom ni ko na nga jeexal sama it ci yow ak ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te kaweel itte jooji yi te réyal ñuy sant mbokk yi nga xam ne ñoo organisé lii ak ñi leen wuy si ak ñi leen ci jàppale ci gépp façon jàppale rek xeetu jàppale bu mën ndax yoonu murid da lu ci nit def defaloo ko sa bopp képp waaye mën naa ne murid yëpp nga def wala sax ko defal moo tax ku ne amee na la njukkal ci war laa sant moo tax ñi ko organisé woote bis bii di màggal ñibbi si Sëriñ Tuubaa gi mu jógee ci géej gi ma ne loolu murid yëpp lañ ko defal kon du cirub ma lu du cirub ma demb waaye ñëpp ko bokk kon ñëpp amee ni leen ci ak cant ak njukkal waaye may wax ni li dox suñu diggante buum gi takke suñu diggante ak sëriñ bi takke suñu diggante ak njabootu sëriñ Touba mooy buumu cofeel mu doon buum bu am solo ndax bokk na ci li gën ci xeeti jaamu yàlla bëgg ngir yàlla ak bañ ngir yàlla bëgg ngir yàlla ak bañ ngir yàlla jaamu yàlla yi gën a rëy ndax dañoo wax ne sunu borom dafa mas a wax yu yonent yàlla Moussa ni ko ana loo ma mas a defal Moussa ma mas a defal mu ne ah, yàlla maa ngi jullite maa ngi woor maa ngi saraxe yàlla ni ko asalaatu laka nuur julli gi nga julli ak leer la muy def si ci yow asiyaamu ni ko koor bi koor ab pàkk la bu lay fegal lépp lu waroon a jëm si ci yow lu dul noonu as-sadaqatu laka burhaan ne ko sarax bi ngay saraxee aw lay la ñeel la lay layal la ëllëg kon loo mos ndax lépp des na la jëm mu ne ko ah, yàlla kon lu def mu ne ko ndax mas ngaa bëgg nit ngir man mas ngaa bëgg ngir sama jëm ndax mas ngaa bañ ngir sama jëm Moussa xamante ni kon. ndekete kon li gën a rëy ci suñu borom soxla ci jaamam mooy ñi bëgg ngir jëmam bañ yëpp ngir jëmam kon li dox suñu diggante ak Sëriñ Tuubaa ñu xam li mu doon mooy bëgg ngir yàlla jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn waaye bu ñu daan wax ximaar mu daan naan naan am ñollu saa bu ko naanee ñu indi ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu seet da ca war ci ab yàpp ñu yar ko ko ñu teg ko waaye dana gis ñu indi waa jooju am ko ni kii de yal na ko yàlla rëbb ndax liñ fi indi ci yonte benn lool yonte ni ko bul ko rëbbati ndax kii kat ku bëgg yàlla la ak yonente ñu xamee ca bi mbëggeel li ngay bëgg ngir yàlla ndekete mën naa tax sax ñoom te yan nit di defaat lu bari mën na mën nañ nga ko caa jéggal ngir cofeel ko sëriñ Tuubaa wax ne xubbiya fillaahi wa bughdi fiihi lii aw salaa maa maa kuntu astafi sama bëgg ngir yàlla ak sama bañ ngir yàlla day lépp lu ma tànnal rek moo may lu ma bëgg rek loolu moo may bëgg ngir yàlla ak bañ ngir yàlla cofeel gi dox suñu diggante ak Serigne Touba dox suñu diggante ak njabootam cofeel bu ngay gis fii ci àdduna mu dox diggante nit ñi ak nit ku baax takk ndeer bi moo feeñ fii waaye jëmm ji ca kaw la nekk ndax ci xadis boobu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne yàlla saa bëggee ab jaamam day woo jibril ba ba mu ñëw mu ne ko sama jaam bi bëgg naa ko na ko bëgg jibril bëgg ko woo malaayika yépp ni leen jaam sàngam jii kat suñu borom bëgg na ko na ko bëgg ñoom ñëpp ñu bëgg ñu doog a wàcceel ko ak xamoon ci kaw suuf ku ko gisati bëgg ko ndekete kon cofeel bu nit di sopp nit ngir jëm yàlla rek ca yàlla la tàmbalee doog a ci fii suuf loolu moo tax sëriñ bi wax ni ahabanil baaqi fala ulaaqi gayra muhibbi yàlla bëgg na ba tax moo gisati moo bëggut maa xam ngeen ne sëriñ bi ci biir géej ci tukki bi tubaab yi ko jëloon sax ngir di ko bon xataal yii saa suñ borom day dugal ci xolu benn tubaab bu jékki-jékki am ci moom cofeel goo xam daf koy liggéeyal ni ko murid saadax yi liggéeyal moo tax mu ne dalla ala kawni alxalil ara man lam yakun muhibba lii tegtale ni ab xaritu yàlla la ab soppi la mooy du ma gis ku ma sopput ma ni cofeel gi murid yi am ci Sëriñ Tuubaa kenn nettali ko lu wér ndax sëriñ Abdul Ahad radiallahu anhu mas na fee wax ne murid yi mën na maa seere seenu murid saadix daal ne ndax sëriñ bi muy lim melee murid saadix ne tuuba li abdin muridin saadixin lahum bi xidmatin la wax aw bi xubbin aw hadiyaat boo nangoo liggéeyee li fi yàlla murid saadix boo amee ci moom ak cofeel murid saadix boo nangoo yëkkati sa alal jox ko ko addiya moo di sàkk mun nag moo di Sëñ Tuubaa yi moom ñett yëpp wal nañ ko wal bëgg ko di ko liggéeyal jox sa addiya kon mën na maa seere ne yéen ñëpp ay moo di ma ne benn bés Sëriñ Saliou ma toog moom mu ne ma sëriñ bi de mas naa ñëpp ngëbub suuf daal ne ma di suuf si de ku mu ci dal rek loolu daal yaa ko sa bopp waaye nee na ba mu sànnee suuf sax dañu doon jëkkante suuf si di ko lekk ma ni cofeel sopp nit ba àgg si la lay nuru lor sax bu bàyyi ko ci moom xéewal nga ko jàppe ak cofeel féete mënu ko fete ko kon cofeel gi mënu di am seen tubaab leer waaye nag njëriñ njëriñul cofeel boobu lépp nag ci kaw ci nun moo di day desiwaat ndax yonente mas naa toog benn kaw-kaw jógee fële ñu woo ca kaw mu wuyoo ko ni mu ko wooye mu ne ko ndax nit bu bëggee ay nit du du leen du ànd ak ñoom mu ne ko ah kay almarhu a amal aaba nit ku ne ku mu bëgg rek moo la ko fekk su borom boole ëllëg bis boobu wax nañu saxaaba yi bëgg nañ ci mbégte mu kawe ngir yëpp nañu ni sopp nañu yonente bi te gannaaw nit ku mu sopp dinaa ne moom rek ko kon kon cofeel gu nu am ci suñu tubaab rek njëriñ li desiwaat na ci ñun foofu. bëgg Sëriñ Tuubaa yi dana waral njéggalu ci suñu borom dana waral it suñu borom jubal ak jaam ndax moo ko ñaan ci suñu borom nangu dafa wa kullu man ahabbani aw maala ilayya farzuqhu hudan aw maala képp ku ma bëgg mbaa mu jeng si ci man na nga ko may ak njub te may ko alal ni ixfir li kulli man ilayya maala wa an yadayhi laa tusaasi maala képp ku jëng jëm si ci man nanga ko may alal te jéggal ko ay bakkar suñu borom nangu ñaan googu yi muy deyaale boroom ca ful ko wax ni yaa man afa an walidi wa ummi wa man yuhibbun yow mi nga xam ni jéggal nga sama wajuru jigéen jéggal sama képp ku ma sopp ñu xam ne kon ñaan ngam ñaan nga fee suñu borom nangu la kon njëggal koo gii ak alal joojee mu ñaar ak njëg koo gii kenn mënu koo xañ nit ki ku dul ka dox digganteem ak bëgg Sëriñ Tuubaa ku mënta dox sa diggante bëgg Sëriñ Tuubaa rek mënu laa xañ njëggal yàlla ko waaye nag moo de du dëggal du fekkee fukk mukk fu ñuy waxuma la fu ñuy wedde Sëriñ Tuubaa waaye fu ñu koy naattablee sax mu di fa topp ndax alquran bi wax mooy waxal nuzila alaykum fi lkitaabi an ida samitum ayati llahi yukfaru biha wa yustahzau biha fala taqudu maahum hatay xudo fi hadis nu xëy mooy yàlla farataane ci yéen bu leen fekkee mukk béréb bu ñu weddee kiimaane yàlla yi te du da ngeen jug dem jug leen dem ba ba ñuy dugg ci beneen waxtaan saa bu ngeen toogee ci nit ñuy wax luy tekki ak wedd yàlla jug leen dem ba ba ñuy noppi ci loolu te Sëriñ Tuubaa ci kiimaane yàlla yi gën la bokk ndax wax na ne baana li kulli man dafa walaaya kaw nii li xaalix ibrahima aay wax nañ ne Cheikh Sidi Ba bi mu ko taggee ba agsi ci ni innama cheikhu nicmatun anhama allahu biha aayatu min al ayaati sëñ bi dafa wax ne bal aayatun bayinaatu fii suluuri lisnawil alim daal di du sax benn aaya waaye man nag bu fekkee njëriñul cofeel gépp dafa desaat ci noonu kon sëriñ bi lan la am ci noonu te dem dafa am benn borom xam-xam bu ñuy wax Stéphane Kofi lañ ko wax ñu tàggatoo teel tuddee ko al aadatu sabon linnaasi al akthari faali mooy juróom-ñaari jikko yi nga xam ne nit ëpp jeexi ci àdduna dañ koy am ko koy ko koy jikkoo dafa wax xeeti relation moo am diggante nit ak nit benn bi mooy relation bi nga xam danga da nga ciy jariñu mu jariñu ci bu ñaareel mooy bi nga xam ni da ngay jariñu mu loru moom bu ñetteel mooy bi nga xam ne da ngay lor sa bopp jariñu bu ñeenteel mooy bi nga xam ne yéen ñaar ñëpp ciy loru ba ci gën nag mooy bi nga xam ni dangay ngay jariñu mu jariñ léegi cofeel gi seen tuwa nun la jariñu ko lan lan la ñu war a mën a jariñ seen tuwa mais mat sëñ Abdoul Ahad dafay nettali ci màggal Tuubaa bu jub si kon nii mu jub si nii muy nettali di wax solo su màggal bi jamono boobu sëñ Mbàkke man mi ngi defar euh, mi ngi defar jàkk ji si dara ko sa àgguma sëñ Abdoul Ahad dafa wax ni jàkk ji sëñ Mbàkke man dina defar tey fële sëriñ Tuubaa nekkoon di fi def li i'tikaaf rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko fi laaj ko ànd ak saxaaba yi ànd ak ëllëg boobu laaj ko lu mu bëgg mu ne ko ñii nga àndal ci laa bëgg a bokk yonente bi ne ko ñi nga àndal day la ci daan boole nit faat na ndax tuur der bi moo ci daan boole nit te la la ci mën na nit ku dem ba toll fii nga toll ma feeñoo ko ñii mën a feeñoo laaj ko lu mu bëgg du bëgg lu dul lii nga bëgg te bu ñu ko ko yanee dana dem ba ci biir du ko mën a dikku te bu boobaa dana fa doxe yàqule ba faw te yow nag da ngay sama waay bopp yoo xam ne bëgg lu ma la loolu ñetti weer moo a xutba sama bés nekk tey mënuñu laa tabax nga doon xutba ko loolu de baax na lool waaye nag sama gis jéggi na lool waaye tey nag sama ruu laa xamul lu mu attan waaye lépp lu ruu gi attan jom ci attan en yonte ne ko ruu gi yow gàllankoor lu foofa la sóoboo yoon géej mu wax ni yoon woowee ba mu tàmbalee am na juróom-ñaari at yu teg yoo xam ne bis bu set danañu ko teg ci am ñett am nattoo ak i coono lu ko fàttaloo nattu démb ba man juróom-ñaari at yu teg dem dem ñett lépp mu di ko muñ bi mu xam ne mbooleem bani Israayil ku ci amoon nga këru ak këru safara seen kër jox nañu la ko man yonent bi dafa ko addee mu ne ko déedéet dara lu jógee ci man di ci waat suñu tuwaay kuñ téyel dencal la ko ba bu ëllëgee kuñ ci dimbali moo xam ne ko dimbali foofee nag sëñ Blanc dafa wax ni Serigne Touba nee na li mu bëggoon ci murid bu ne mooy bés bu ñu àggee ba malaa'ikatul muqarraboon yëpp teew malaa'ul a'laa yëpp teew bu ñuy tudd ba tudd turu Serigne Touba ay nitam ñooy jóg di natt di feesal di natt di feesal di natt di feesal ba ñu wax ana ki nga xam ne ba ñu tuddee aw turam ba tey ay nitam ay jógee taw jóg Tuubaa nag foofu la bëggoon murit bu ñu féete ko fa ku ko fa féete ku ne da nga xam ne féete nga ko fépp muy sagal ko ëllëg ci kanamu yonente yi ak wàll yi ku ko fa féete da nga xam ne féete nga ko fépp ku ko fa féetewut nag da nga xam ne féetewoo ko fenn ba ci boo amee aljanna sax àjjana gàtt nga kon am fu mu féete Sëñ Tuubaa ci góorgóorlu kon suñu diggante ak Sëriñ Tuubaa li ci gën a li ci war na mooy nu yor ci comportement jikkoo jikko joo xam ni danañ doon sagub Sëriñ Tuubaa loolu mooy jëkk te mooy li borom benn waxoon da sëñ Fallu ko sëñ Fallu ko wax ni sunu bàyyi ci yàlla daf noo jàngal ba nu ni ar mu yar nu ba ñu nër mu yar ba ñu jar kon murit ba ni nër yaru ba ni jar loolu dafa doon sagu sëñ te damay wax jamono bu leen ni lu ne nag ci àdduna lu ngeen gis nag moo ko marchandise yi ñu jaay ñooyam yoon moo def ku ko bëgg a ni moo marchandise mooy wane ñooyam da koy defar ba rafet rafet ci xam ni ku ko gis dina am xëy na mu jënd ko bu amul xëy na jënd ko du ko bañ ba ko mu bu bañ ko bañ waaye lépp marchandise la dañ koy exposé kon jamono yaatu ku ne rek da ngay jël marchandise mi nga yor exposé ko waree ba xam bu nit ñi bëggee jël bu ñu bëggul bàyyi waaye jërul sax xuloo jërul xeex jërul xeex-xeex comme ni sëriñ bi waxee mu ne bu xal loolu damay wax jamono jamono danaa wax ni léegi li baaxoon ci bis yi mel ñu jël chaar bii sëriñ Tuubaa wàcc xal xuloo banaa xalat tawaat suñuy xool nanga nga ko def muy bëggante di xaas taxaas ngeen di laa tanaazu'in wala taxaas waaye xëccoo li ñu ko def duñu añaanante duñu xuloo dunu wanante gannaaw duñu bañante duñu fañante ma ne juróom yooyu matul lay jël di ko traduire ci làkk yëpp di wane am solo la ci bisi bi pour ñu jàngal ñi ci des nekk ma ne ngir ñu sagal sëñ bi ak féete ko fenn dafa am lu mu woon lu am solo ci adduna mën naa ne adduna lu fi mos a jàll loo ko jàll bu dee kenn ku jàll moo la jàllale bu dee société bu jàll loolu moo leen jàllale te sëriñ bi bu yàgg ba muy sos mu tarixa bi ci loolu la ko fondé woon loolu mooy lan mooy itte itte itte jooju moom la sëriñ bi fondé tarixa bi yar ci ak njabootam yar ci magi tari Serigne Abdou Samad ñii ñu cërale bis bi tey muy doomi Serigne Touba sëñ Cheikh naa ngi dana leen ci leeral li ci war a leer waaye dama de itte itteem tax li mu dund ci àdduna bëri ndax xam naa ne soriwut ak suñu saa bu am gane àdduna ay 1918 su ma jëmoon fanweeri at ak benn la dund te lépp lu ñuy taxawal taxawal la kon kooku doy na exemple ci itte ju kawe ñi ñu bëgg a waxtaan kon itte jooju lañ bëgg a jàngat ñuy wax ne dogale yàlla yi suñu borom dafa am lu muy dogal loo xam ne yow lu nit mënu ci dara dafa am dogale yoo xam ne yow nit néewu nit ki fa muy juddoo yoonu ñëw daa jeg gis bokk la bokk nit ki famille ba mu bokk kër yi ko suusu ko itte mayu ko dafa bokk noonu gàttaayu nit ki ak guddaayam ak xeesaayam ak ñulaayam ak rafetaay ba ñaawaay loolu yoonu doomu aadama néew loolu mooy dogal yi nga xam ne suñu borom daf koy dogal te yoon nit néew ci waaye dafa am yeneen dogal yoo xam ne daf koy teg ci pas-pas nit ki ak itteem dogal yooyu muy dogal nag te teg ko ci pas-pas nit ki ak itteem nga xam ne sabab lay am kooku nu nit ki amee itte rek noonu lay amee résultat nu mu ñàkkee itte noonu la ñàkkee résultat loolu daf mën xam ne lu mel ni sàkk xam-xam ak jaamu yàlla bu bari ak wàllu commerce moo xam da ngay bay moo xam da ngay càmm sàmm moo xam loo mën di def ci àdduna di ko lijjanti am na ci yoo xamante ne ittee nit ki moo koy jàllale fu mu moo ko ak ñàkk ittee nit lu mu ca ñàkk moo ko xaj yooyu dafa mën nag dafa dikk lu bari ci mbindum Sëriñ Tuubaa mu ñu ko tudd Isaa day wax day tagg saxaaba yi ak sëriñ su jëkk si ci itte ju kawe di wax ne kullun lahu himmatun yarqa biha abadan ila azizin muizzin zi futuhat kenn ku nekk ñoom dañu am na itte ju kawe yoo xam ne ci lay jaar ci itte jooju pour àgg ci ci ci suñu borom Isaa sëriñ bi di melal boppam ci ñàkk itte ci ni ko ahlu tasawuf baaxoo def muy toroxlu seen diggante seen borom di wax ni tanaamu ayni wa qalbi kulla azminatin wa himmati lil maali xayru mulkinati sama xol ak samay bët di jamono bu ne day nelaw te samay it ma si jóg mukk jëm ci sàkku yu kawe yi mu wax ko ci anam toroxlu sëriñ Mouhamadul Amin Diop Dagana ci Irwaawu Nadi dafa wax dafa wax ne kenn ci kilifa yi suñu sëriñ si ku doy moo ma nettali nan la wax ne sëriñ bi ko ne su yonente bi ma dafa waxante ga jaaran ne ko rabbi asxaabaka bil himmati sa sa talibe yi na nga leen yar ci itte wala turabbihim bi darsi kon jàngale xeetu yaree la waaye sëriñ bi dafa jël itte muy xeetu yaree la woote loolu mooy itte nag daa mati leer a leer mu mel ni yàlla ci bopp bi dafa digal yonente bi ni ko ñi am jom ñi ëpp jom ñu leen ulul azm muy borom itte yu kawe ci yonente yi na amee jom nañ amee woon jom di muñ na nga amee jom loolu yàlla moo ko digal yonente soosu yàlla di ŋàññi ñi ñàkk itte di wax ne wala yaatuuna salaata illaa wa hum kusaalaa saa bu ñëwee di julli seen ak taaya dañuy àndal wala yunfiquuna illa wa hum kaarihuun bu ñu demee bay financé suñu àll yi eh, ci ak ñàkk seeba ñu ngi waaye néew la kon loolu yi sëriñ bi wax ci itte ak loolu yàlla digal yonente bi mu topp ulul azmi mina rusul ak loolu mu ŋàññi ñi ñàkk itte laaj na ko ñu jàngat lan mooy itte itte mooy lan dëgg mooy lan bu ko defee koy jàngat am na benn borom xam bu ñu wax Ibnul Xayyim dafa wax itte dañ daan wax ni mooy njëlbeenu murit murit bala moo bala moo am iraada xam xam mu lay jëkke waaye nag bi dañ ko jagleel ni mooy yemukaay mooy yemukaay iraada kon sëriñ bi fekk na di jàng alxuraan di jàng yàlla waaye itte ji mu leen jàngal mooy nañu weesu ay wax te soobu ngirum jëf kon itte bu ñu ko waxee mooy ni sëriñ bi àndewoon ak murid yi jëkkee mooy jiitu di dox ñu topp ci naam jàpp ci seen loxo ñu dox moo tax sëriñ Saliou di dem leen ba waaye yoonu ñëw dem ñu dem kon itte bu ñu ko waxee dëkk mooy soobu jàpp ci loxo ñun am dox lu ma itte waaye li nga li nga bëgg nga taxaw te mu ci dolo ko may loolu la wante nag itte di ñaar dafa am itte ju kawe ak itte ju suufe ñu gàtt lan mooy itte ju kawe itte ju kawe mooy lu mën doon nga bañ a bëgg yu nandoon bëgg a da ci kaw bu ñëwee ci bu bu bëgg lenn lu dul directeur bu fekkee ne dangaa bu fekk ñu xëccoo am réew bu bëgg a doon lenn lu dul président naka noonu bépp martaba bu ñuy sàkk ci yàlla bul sàkk ñu nandoon yi seetal li ci gën a kawe te jógut nga nga nga sàkk ci yàlla léegi nag maraatib yi ñu am ci yàlla liñ ci xam ak nu moo ci gën a kawe muy mursala waaye buñ jàllee siddiq moo ci topp te siddiq boobu góor mën na ko nekk jigéen mën ko nekk kon yàlla xaju ko nit kuy sàkk ku ne seet li gën a kawe ji ñu war a sàkk ko loolu lañu tudde étude bi kawe moo tax yonente bi ne noonu bu ngeen dee ñaan yàlla ñaan leen ko firdaws ndax firdaws moo gën a kawe ci àjjana idaa saaltumullaaha fasaluuhu l firdawsal a'laa comme borom itte ju rëy dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ni lu mu doon du bëgg yu tuuti saane waaye da ci gën a kawe day sax mu mu mu dégg man ko bëgg ko nag lu ko ca fekk baax waaye mooy itte yii nga xam ni maanaam mala yi ci lañ nekk damay wax ni nit yi fekk itte lekk naan ak defar kër gu rafet ak fexe ba saytu ak njabootam di leen fa dëkk ah na xam ne weesuwul matelas picc yi ndax picc yi danañ fexe ba lekk danañ fexe ba naan danañ fexe ba defar bu tàgg pour aar seen njaboot kon nit soxla nañ ci moom mu am itti bu gën a kawe na wees ko loolu suñu wax soxla ci ay mot moo tax net bi benn woykat nga ne isa isa ramarta fi sharafin marumin fala taqna bi ma duuna nujum boo demee bay rey sa bopp di wut tedd nga fexeel ba bu fekkee ci kaw ji daal bul bul taxaw mukk te ëggu ci bi digee seetal da ci gën a kaw nga sàkk ji loolu waaye diggante bu ci soxla fa taamul mawti fii amrin xaqirin ka taamil mawti fii amrin xaqirin ndax ka dee moom bu xasee di ñëw nga doon sàkk lu kawe ba dee ci ak ngay sàkk lu tuuti ba dee ci ñam képp moo tax wala bi di wax ne kuy dee ci àll na la gën nga rek waaye da ngay seet li gën a kawe ñu bëgg ko ba loolu seen fekk fekk yonente bi di soññee jamono bu ne ci itte ju gën a bëgg mooy mbir yu waaye yu suuf yi jullit bu am itte ju kawe nag ñetti mbir lay boole ci ab dox day xër première fois ci njëriñ waxuma njëriñu boppam de li war a fi wax naan njëriñ ñoo fekkee loolu lépp ñàkk ci kër pour am itte luy fas yi am même bu ko fekkul baax lépp luy jëriñ doomu aadama ci seen adduna ak seen àllaxira nga di ci yëngatu même boo ko fekkewul baax waaye boo nee njëriñ loo fekkee boo ko nekkul fekkee génn ci loolu ñàkk seen ñàkk ne borom itte buy dox ñetti mbir dana ko boole day ko yàlla ak ñàkk tayal ñàkk décourage ñett yooyu ngay boole. la ngay sàkk loolu ndax fi mu toll ngi wax ni ñu waaye bokkul itte bokkut farlu bokkut ak jom ku xam ne ne loolu la ñett yi ak farlu ak jom bokkul mooy nga seet lu kawe nga acc sa itte soxla ko farlu mooy nga jox ko la nga mën lépp ci temps ak ci coor ak ci finance pour jot lan mooy jom jom mooy la cay métti gi di ko muñ métti métti gi muñ seen bopp te loolu nag lu yàlla tamit sama xamante ne mooy ihris ala ma yanfa'u wastain billahi wala ngay farlu ci lu lay amal njëriñ te jëmbali ko yàlla te bañ a tàyyal bañ a kon ki am itte yu kawe ngir mu àgg ca itteem jooju fokk mu boole ñett fokk mu mu jëmbali ko yàlla fokk mu farlu fokk mu muñ loolu baax sa itte ju kawe nag boo nee ni mas a jàll ci adduna baa ñu taxawal fi dara itte ju kawe ji dinañ ko taxawal ba ci ba ci réew yi nekk rek réew tubaab yi lu ñu taxawal ci adduna itte moo leen ko taxawal moo tax damay wax ni jullit bi ñëw fii ci réew tubaab yi dafa dund am na ñaari mbir dañ ko sant mooy na andi jikko jëm yor bañ xamee ko ngir mën koo jël waaye na seet lañ ko ragal bu ñu jël ko yóbbaale ko fa de muy itte ju kawe jooju ñu ko war a jàng ci ñoom indil leen it pas-pas bu rafet te itte ju kawe moom moo borom itte mooy fekk nit ñi di nelaw mu yee mu yee leen xam ne fi ñu nekk baaxul dañu ko dañu ko war a weesu. itte mooy tax nit ki kenn nit képp dem ba mel ni mbooloo mais mën la ci junni nit inna ibrahima kaana ummatan qaanitan lillahi hanifan wa lam yakun mushrika Ibrahima suñu doom dafa wax ne ab nation la aw xel la te kenn la waaye itam jugee ma tax mu mel ni mbool wa qiila rubba rajulin ka alfi wa rubba alfi qiimatan ka uffi am na benn waay boo xam ne dana taxaw taxawaayu junni nit waaye nag mën ngaa jël junni nit yoo xam ne bari nañu tase ñoo seetlu na kon loolu mooy itte yi ñu doon wax lan mooy itte dëgg-dëgg mooy itte loolu mooy itte tomb ñaareel bi mooy lan moo xaajale diggante itte ju kawe ak nëbët yu bari itte ak nëbët ndax gis nañu ak tasaw di tagg borom itte yu kawe gis nañu leen ñuy ŋàññi nëbët yu gis nañu leen ñuy ŋàññi itte ju suuf gis nañu leen ñuy tagg gàttal ay nëbët kon léegi lan moo xaajale diggante itte ju kawe ak nëbët yu kawe lan moo xaajale diggante ñàkk itte ak gàttal ay mu mel ni itte ju kawe buñ ko waxee li la tax li nga bëgg nga seet li gën a kawe nga àgg buur jëm ci mébét nag buñ ko waxee nee mébét lu ci ëpp moog adduna ñooy lëkkaloo mooy nga yemale ko adduna képp gàtt gàtt itte lay tekk ñaar premier point ñaareel mooy mébét ki koy def lu ci ëpp du jóg dox meetar pour am am li mu bëgg day bëgg a toog di rek lu nit am mu ñàkk noonu ko am te yëngatu yëngatu ci kon itte ak mébét boobu mébét bi bañ itte nag lañ soxla ci biir moo tax yonente bi ni al kayyisu man daana nafsa ke muus mooy ki nag bakkan waa amila xam daal mooy ki nga xam ne lu ñuy am lu jàpp kon mébét mooy di bëgg rek ànd ak toog di xoole itte mooy li nga bëgg nga ni taxaw fas yéene mu taxaw moo tax mébét yu gudd ak xër ci àdduna yàlla ne ko faral di boole di wax ni ñeent ak yi yoo xam ni ak caxee di lay teg muy wow bët nit ki dem ba ba bëtam wow dootu dara mën a tëggee ne ak rankoo loolu nee na ak caxee di ci nit ki noonu xol bu wow naka noonu nawet bi gudd ak xër ci adduna yëpp nee ak taxee di lay teg ci nit day sonn nit waaye nag ñaari mbir yi mat xam ne adduna ak laaj lan mooy adduna ak lan mooy laaj adduna aw yoon na wu ñu romb jàll alaaxira mooy dëkkuwaay bi nga xamante ni mooy saxwaay fa la nit ñi jëm bëgg rek xam-xam bépp mu tënk ko xam ni adduna ab jaarukaay la alaaxira fa la jëm moo dëkkuwaay booy sa rek ci kaw noonu mu xam ne fii aw yoon la fee ab dëkkuwaay la muy jëfe noonu jëf lu fa ne da ngay jëf ci aw yoon woo waram jàll lu toll nii da nga soxla ca dëkk bi nga jëm nga nga di ko liggéey pour mandat ko mun nag liggéey ngir àdduna ak liggéey àlla ngir àllaaxira daa mën sax mooy buñ ne àdduna mooy commerce ndax mooy bay ndax mooy sàmm ndax mooy jàng ndax mooy nangam ndax loolu mooy liggéeyu àdduna buñ ne liggéeyu àllaaxira ñu ne mooy dem kàbbaay di julli di woor di jàng alxuraan yor na lu xasida di sikar ndax loolu mooy jëfi àllaaxira ñu ne déedéet jëf jëf ji ngay sàkkoo même jëf ji mooy yoon bi day yóbbu ci àllaaxira amul ñaari yoon amul yoon boo xam ne daal yoon bi moo jëm ci àdduna yoon bi moo jëm ci àllaaxira benn yoon bi moo jëm ci àdduna moo jëm ci àllaaxira kii dafa gàttal ay itteem yemale ko fii kii guddal ay itteem yemale ko jëmale ko fa waaye waaye duñ bu ne rek àdduna nga ni kon ba ci xëy dem sa marché ba di liggéeyi sax mbirum àdduna déedéet la jàppal ne yoon woowu ngay wute àdduna ci lañ ñu sa marché commerce demal nga bay demal nga sàmm fexe ba am alal fexe ba am ba noppi nag sa xëdëf na doon ngërëmu yàlla mooy loolu boo ko xamee nag te loolu it lañ gis mag mu yi ak doomi seen tuwaay yëpp soobu ko ndax ku ne xam na ne gor suuf su yaatu jënd jënd matériel ci lu jege milliard jël alal ju bari investi bi dara loolu donc suñ tool la gis nañu ko suñ tool jënd ñaar téeméeri tracteur ak nag te wutu ci lu dul ngërëmu yàlla te kii wut àdduna noonu la ko wuti mooy kon yoonu àdduna ak yoonu àllaaxira yoon de la ñu wuti mooy pas-pas pas moo dox ci diggante pas-pas waaye jullit ak yéefarit wuute ba tey ni ñuy doxe ci ginnaaw bu pas bi jàllee muy yéefar bi day dajale alal ak nu ñu ko mën a koy tax a wuti bi dañuy soxla ci moom buy wut mu sàmmoonteeg yoon wa yàlla bëgg wuti ko alal damay wax dama mel ni sénégalais dañoo am mbaax lool tamit lool am jikko ju rafet ci liñ gën a bëgg mooy am alal ba terale ko nit teraanga rek lañ soxla loolu day jikko Sénégal bi ku ci wut alal ku ne la la gën a ñor mooy am ko ba tërale ko nit waaye nag lu am solo lu ma ta bàyyi xel te ñu bàyyi xel mooy ne yàlla bala mu laa laaj ëllëg foo dugal alal da lay jëkk laaj foofu njëriñ noppi bu baax nag léegi différence boobu nag mooy am diggante ci kenn du poussé ci kanamu yàlla te du laaj na la ñeenti sa dund bii ci lan nga ko jaaxal sa ndaw ci loo ko jaaxal sa alal foo ko jëlee ak foo ko dugal. loolu daal dafa bàyyi xel. dañu bàyyi xel ci ne dëgg la teraanga ji ñu bëgg ñëpp ba tax ñu wut alal waaye bu caagee nag ñoo ko wute ndax yàlla wala mu la laaj foo ko waaye ma ne jullit bii dajale alal ci lool ay at boo dajale ay milliards te milliards yooyu ñu mën ko financer ci genn ngoon. kooku danañ xam ne wut doon àdduna mu ngir àdduna loolu pour àdduna waaye pour yàlla dara na wut ngir lu a bu ñu jaar suñu ci garab yàlla man ñi soppal seen jiwaat dinañ ñu daan sonn lu ne def nañ ci dara lu weesu saa bu sëñ bi soxlaa rek ñu mën a taxaw ci dañ doon sonn du pour àdduna waaye pour ngir wut ngërëm yàlla moo xam ñu sonn ci kon àdduna seen àdduna dañ doon wut du pour àdduna waaye dañ koy wut pour ngërëm yàlla ma ne bu fekkee yoon bi ngay jaar pour am am koom yoon bi ngay jaar pour am am personnalité pour am alal am am pouvoir bu fekkee yoon boobu yi dàppoon ci wut ak yoon bi suñu doon rëdd jullit bi daf ko war a suuf na wut alal na wut pouvoir ndax waaye saa boo demee nag ba yoon bi bi ngay jaar wuute ak yoon yàlla bi bu boobaa nga des doon ak faqir ñàkk yu dara yalwaata moo bu boobaa nga des néew doole lool ñu ngi la dimbali moo gën moo gën ngay jaar ci yoon boo xamante ne boo dajalee da nga dajale ba noppi daan yàlla dala cee fekk kon doole ji wut ko farata la ndax yonent bi nee na jullit bi am kàttan moo gën te moo gënal yàlla jullit bu néew doole daan ñun ñëpp nag baax nañ waaye nag kenn moo te nag suñu borom dellu wax ne wa aiddu lahum mastata'tum min quwwa lu ngeen mën ci kàttan rek na ngeen ko préparé pour seen diggante ak yéen te ku ne xam ne alal doo def pouvoir doo def xam-xam doo def kon jullit war naa wut alal ngir am doole war naa wut pour am doole war xam-xam pour am doole xam-xam bi bu ñu ko yemale rek ci xam-xamu yëpp dañ ko soxla ngir ngir ngir jàllale am na ku ñuy wax fasalaa góoram ci tër gi a xidma bii la di ci dox am benn tali bi mu tabax immeuble bu mag mu seet si ko ni ko immeuble bi baax waaye nag boo ko defoon bu jiitu ji la ëllëg dina wax jamal ko ni nu ma ko def bu jiitu ji ma def mu ne ko da nga ko def ab jàngukaay doomi julli di si jàng pourtant yi noonu teguñ fa alfaan jànguñ fa hadis xam-xamu technologie bi lañ koy jàng waaye doomi julli yi lañ soxla mu ngi ko ñàkk lañ lañ di jàngee ko loolu lépp nag di ko xam ci liggéey yàlla ci baax xam ne liggéey yàlla jërul nga doon am médecin bu jàng nga toxoo ci ni kon naa dem jàngee ko jëlul nga doon ab béykat yi yàlla foofu daal dañu daanaka càmm loo nekk rek foofa sax yàlla sax la ko noonu la liggéey moo tax sëñ Moussa sëñ Moussa daan wax ni daan liggéey ba ci jëkk mooy borom alal du du lew te bëgg koo def ci yoonu yàlla alal jooju sëñ Tuubaa soxla ko ci biiru liggéey ñaareel bi mooy ndaw lu am kàtt te dooleem jooju mu bëgg koo jeex ci yoonu yàlla. doole jooju sëriñ Tuubaa soxla wér bi ñetteel mooy ku am xam-xam bu sell bu rafet te xam-xam boobu yéen boo ko jeexal ci yoon yàlla kookee sëriñ Tuubaa soxla ci wér liggéey kon soxla nañ ci xam-xam soxla nañ ci àll soxla nañ ci ma ñett am ko am xel mu rafet te bëgg koo liggéeyal yàlla xel moom yéen sëriñ kon yii lu ci nit am rek ko fa mu ba am ngërëm yàlla moo tax sax déplacé jëlu tu ko fenn dem ci leen waaye nag itte kawe dëgg dëgg dëgg dëgg mooy bul aj fenn sa itte fudul ci yàlla sa dox bul taxaw mukk ci àggoo ci yàlla Ibnu Qayyim day wax ni itte ju kawe dëgg mooy di ko sàkku sàkku bu dëggu sa sellal borom itte nag du mën a see def ndànk du mën a see muñ te amul li bëgg waaye nag danaa am li mu bëgg am bu gaaw ngir ku noppaluwul bu jégalu ci suba ba jiw jegewul foog sa borom mooy katam te yàlla ku neex a wut la moo moo moo gën a yomb wut àdduna fi toll ndax Sëñ Tuubaa dafa wax ne addunya mudbiratun laa yudrikuhaa baa'ir wal aaxiratu muqbilatun laa yahuuduhaa haadin mu ne alaaxira dafa woo adduna dafa war a ginnaaw di daw kenn mënu ko dab daw alaaxira dafa dëgmal di ñëw te kenn mënu ko dab daw daal di mel ak yàlla wut ko moo gën a yombul ak dina dafa wax ne man aataani yamshi aataytuhu képp ku dox jëm si si man ma ñëw pour gàttal la. gàttalu yàlla nag ku ne ci nga xam ne li nga def si diggante si borom dimbalee na la taxawoo na la xam ne da nga xam ne lii jëfoo ni bënam mooy gàttalu boobu yàlla ci soos la wax. kon ki gën a ci nit ñi itti ëpp ci daraja mooy ñi nga xam ne seen bànneex dafa nekk ci xam xam yàlla ak sopp yàlla loolu nag danañ ci xam ne ittey Sëriñ Tuubaa du kawe ndax dafa wax ne lépp moo doon ko def walam azal mundu xaqaltu taaliba maarifatan billahi jalla xaaliba musuma dañ bu ma xelloog léegi di sàkku ak xam yàlla fa joltu bayna al ulama wal awliya may wëree lu ci diggante borom xam-xam yi ak nit rek ànd ak sama yéene sama jëfe samay wax lépp ngërëm yàlla bi la soxla ak xam ci loolu yi la ay doomu yar ci mag murid yi murid bu ne mu jëgal nañu itte ju kawe jëf ndax dafa wax ni ab murid wër sa bëgg lu dul ngërëm yàlla isil murad bi laa yuridu abada xayra ridar rahmani xaysu xasada suñ ba jaaxal di wax ne xarit yàlla yombul te moo am njëriñ wutal yàlla yow nii ba dee baa nga am li tax yàlla yombul ku koy wut te am ci la soxla doo am ci moomu si ngërëm dalay woon mayam yépp te yées sa xol mooy dëgg muy gis ci sa xol mañ mañ te foo gis ku saytu yëfam kat na lay gënal ay yëfam ngir ku ne gën yëfam te ak may lu rëy rëy ci xol ak ci bët jarul dëpp kuy dëpp dëpp ndabam amul fenn foo xam ne yàllaa fayam amul fay mayam yam yàlla muy jàngal ñàkk itte ni xarit dëgg yow bul defu tëddkat ndegam bëgg ngaa def nit tëdd nga ndegam bëgg ngaa tëdd bul tëdd yow te woppoo wér ndaxte kuy faax la bàyyil faw biddanti te yeewu njël pour yeewu njël kat du jot sant ga na nga yeewu yow jëkk waxtu fajar di fàggu yi ngërëm nag ba jot na du te boo dee nelaw nag ba waxtu fajar nga jóg yeewu jëm julli biddanti nga nelaw lekk wax néewale yett yii te boo néewale yett yii kat nga nelaw tuuti wax tuuti mos tuuti nii la dagg yëpp daal ba far doon defal nii ma wax baa nga jëbbal sa mbir nga def nii ma wax kon ma see wàcc ku dul gis te jox ab tuumam kay di set joo loolu neexaa ko yow yegg na kon ñoom dégg nañu njàngale Sëñ Tuubaa ba di ko jàng waaye nag tomb ñetteel bi kon lan mooy sabab ba ci jëkk mooy xam-xam ndax nit mënta bëgg lu mu lu mu xamut mënta aj itteem ci lu mu moo tax yàlla digal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko na ngay sàkkoo dolli ko xam-xam waxul rabbi sidni ilma jàng alquran di ko settantal dana tax ittee nit ki kawe jàng siira yonente bi histoire yonente bi sallallahu di ko ko settantal bu baax man naa kawee ittee nit ki jàng doxinu nit ñu nit ñi fi mas a jaar ma taxawal fi leer nit ñu mag ci di jàng seen histoire di ko xam di ko seetlu dana tax nit ki mën a am it. Ibnu Xayyam day wax ni mas na day wax ni téere yi ñu waqfu ci école bi ma nekk yër naa ko mat na juróom benn junniy téere ma yër lépp waaye lan ma jox mooy itte ji ma xamee ñu doon tari ak nañ góorgóorlu ci am jàng ak nañ sawar ci ak jaamu yàlla tax li ma nekkoon lépp lii nit ñi ma jamono nekk yi ma xeeb moo tax. jàng lycée d'histoire dana tax nga xam fi nga toll yow pour mën a gën a bëgg naka noonu ànd ak borom itte ju kawe dana tax a kawe dana maye itte ju kawe ngay fekk ko am itte nga ànd ak moom dana kawe itte ndax boo fekkee ñu gën a taayeel ci at nga dëkk di day wàlle comme ni itte ji wàlle itte ju day wàlle ndax boo tëddoon ak ay def naa ne ñoom ngi def trois heures du matin ñu jóg di kurkuri jàng alxuraan jàng xis de bu dem liggéey yow ngay nelaw ba fay dana sa xel bi ñu moo lay jóg di leen toppandoo doo ko teg moo tax ak taayal day wàlle itte day yu kaw yi bokk na ci liy may itte te suñu borom te loolu digal ni tànn ay àndandoo yaa ayyuha alladina am taqullaha wa kunu ma sax la ngeen ragal yàlla na ngeen ànd ak way dëgg yi yonente bi dañu daan digal ñuy tànn àndandoo ndax nee na bul ànd ak kudul ab julit saw ñamit fexeel ba bugg kenn lekk kudul ragal yàlla laa tasxab illa muminan wala yakul taamaka illa taqiy waaye nag ngir nga xam aji dëggu ju jël yàlla di tànn loo ni la na nga ànd ak moom ngir nga xam aji gëm jooju la yonent bi boole ngir nga xam aji ragal yàlla jooju la yàlla boole nooy fexe ba xam mooy test Sëriñ Tuubaa li mu jëlee mooy bala nga ànd kenn na nga ko test wax tamit réer xam la soxla bala nga ànd ak ko test na nga ko nattu aw zaahirahu sa di bay loolu Sëriñ Tuubaa ko waaye nag booy tànnee bul xool ci tànn jikko lañu wax de ak xol ak jëfi nit ku ñu rafet waaye bul xool bu mu rafet bul xool bu mu ñaaw laa tasdari l abda li xub xel man basi maata xam ni dina xub kursil dersi bul xeeb nit mukk na ngir ne col gi dafa ñaaw mbaa dafa tilim mbaa dana ñaaw idrob ba day tax xaddu din xajum talaa nuuran wa sirran ni lay xatma nee na mën ngaa gis nit mu ñuul ko ñaaw lool tilim lool waaye ay leer la fees day doog lool wa ruba abdin xat ala inda al uyun ka annahu xubdu raaxi ma ngaa gis nit bu kawe lool ba fu mu ne tëll ñëpp jóg ñu xut bu xut bu sama baa ngi nii waxuwa kal xer ji la dal rahman moo gor ñeen fa yàlla moo tax booy tànn nag mu ak col maa ngay tànn comportement kam waaye da ngay xool jikko yi nit ki ak ku melokaanam ak xolam nga tànne ko nag borom itte yu kawe dëgg nag mooy mandargaam mooy borom itte yu kawe boo xaal bi muy joxe nii xam mën naa ko ñoo xam benn baax di xëy rek nekk ci li mu nekk di kurkur di kurkur di kurkur bu yàggee dana la kon itte ju kawe bala nga xam ne kii borom itte ju kawe la saa bu jaxasoo tax a tax a buur ay waxam nit daf lay tegtal yàlla moom borom itte ju kawe moo tax ibnu Ataa'illaah man laa yulhiduka xaaluhu wala yadulluka ala llaahi maqaal bu la ànd ak koo xam ne ab xaalam lu la puus ay mu yëg ak xam-xam. lu mat di jàng la ci biir yoon murit ndax suñu borom dafa séddale eh, wërsëg yi séddale dëkk yi séddale melokaan séddale lépp séddale ko xaal am na ñoo xam ne leen séddale xam-xam kese te amul benn yëg am ñoo xam ne xaal la leen séddale muy yëg-yëg waaye amuñu xam-xam am ñoo xam ne suñu borom ñaar yëpp lañu boole boole na leen xaal ak xam-xam am ñoo xam ne ñaar yëpp lañu yàlla xaj yàlla mooy maye doom yaakaar bi nii ba ñëwee ñoo xam ne dañu may ay jigéen comme soog yàlla mooy seet ku waaye yaakaar bi li ma ñëwee chambre zakoor ka ko neex day may ay góor aw yu zaw yu zukuraan wa am ñoo xam ne may ay góor ak i jigéen. waaye jamono bi lañu sax xaqi am ñoo xam ne dañ def ni ñu jaasir am doom fat kon yàlla mooy séddale ñi mu séddale loolu rek ne borom xam-xamu kese kese bu antul mooy débat élection yi ngeen di gis ñu def débat am fa ñaari wax bu ñu jógee ñu naan see waa ji jàmbaar dañuy fàttali si waa ji bu waaye benn résultat bi sax waaye xaal nag bu amte ko xam lu muy tekki ñaata moodu moodu ñaata moodu ñu nga ci àll gëm suñu tubaab loolu am ci pas-pas loolu yëpp ko loolu waaye ñaata lañ dugal ci ku bokkul ci dinañ ci yàlla loolu mooy xaal bu ànd xam-xam yi doo mën a dugal ndax it ñi da ci am ñoo xam ne ñu dugg ci dara bi gëstu bu fekkee ne yow léegi yoonu mën si ba mu romb nga suñu jàng xësite dina ñëwee ne waaw loolu di ngay xanaan baax léegi ñoom dañu ngay baax sëñ ba am morom la loolu ko waxee soo xam ne dañoo am fokk nga mën ko wax leeral loo xam ni xelam dana ko nangu te dafa am ci nit ñoo xamante ni suñu xasee gëm dara lañ gëm moom day day day feeñ ci seen i wax di feeñ ci seen i jëf gëm-gëm bu nekk ci xol bu feeñee ci wax feeñ ci jëf rek fokk mu jeex itam day wàll wàll gi ngay dem fokk mu nga fexe bu nit nag dugg ci léegi nag waaye loolu dina ko nga am ak xam am yëg na benn étudiante américaine bu ci diine islam te ñoom dañoo baaxoo bu ñu xasee dugg ñu duggal te loolu ñu bëgg ci nit la li ñu bëgg ci nit boo nee waaw waajur bu ñu xoolee muy dëgg boo nee déet déet jooju nga wax bu ñu ko xoolee muy dëgg bëgguñ nga ne waajur yoo xam ne bu ñu ko limitoo waajur du dëgg bëgguñ déet yoo xam ne mooy mooy bala ngaa gëm xoolal boo xasee day gëm li nga bi dëgg boo gëmut weddi ñëpp li Sénégal loolu moo waaye ne nekkal bi ñu yàq ma ne am na benn étudiant américain boo xam dafa dugg li diine laaj mu di ko def di muuru di julli te melukaan bi comportement bi yëpp yokku am benn jàngalekat bu ne ci université bi bañ bu mu bañ diine islam tax na bu ko gisee daf koy seet muy wax lu ko neex ci diine ji di ko lépp xale bi kan rek bañ ko tontu du ko tontu du ko tontu ba mu dem ne dem dem mënul ci moom dara mu tàmbali ko xañ ay point ay point yi mu war a mën a moom lu mu ko mën a xañ dara ko xañ ba xale bi mujj dem ci direction bi ni de kii dafa bañ sama diine ba àgg na ci point yi mu war a am sax dafa koy xañ ñu ñu woo xale bu ñëw ñu woo jàngalekat yëpp woowaale jàngalekat bi ni ko wax léegi ni ko wax ni xale bi waxal mu ne bañ sama diine donc yi war a sama ak ñu waa Jabi loolu mu daal di wax ba waxee lépp ëmb feeñ mu ci diine ji lu ko neex wane ne daal baaxul ñun dañu ñu ne xale bi ni ma itam nag ma dafa dugg ci diine la ma nekkoon daal di leeral ak bu ma ci duggee lan la diine def na bi mu koy leeral ñëpp jox ko itti di ko déglu ak doole jàngalekat boobu moom nar gerte la xale bi leeral ba génnee këyit yu mu bindoon jox leen ko ci man bi ma nekk gul ci diine li ma nekk ak ginnaaw bi ma ci duggee li diine def ci man ba mu ko bañ ko yóbbu yoon bu mu jàng bañ fay ñeenti jàngalekat jëbbul nañ ngir bu àndee xam-xam rek lu ne war a jàll waaye xam-xam kese jël ñàkk ñaari rek di soxla foog nga boole xam-xam ak jafe nag doo ko mën a am xam-xam bi ak xal al ilmu wal amalu jawharaani li xayra yi daarayni yajabaan xam-xam ak jafe ko ñaari gaañeer dañ yoo xamante ni yow ëpp na ala loo ci mën a loo ci bëgg jëndee mën ko jënd loolu it xam ba tey am nag borom itte ci kawe nag am na njëriñ comme ni nga xamee ni. Euh, ànd ak ku baax nu mu lay jëlee ak ànd ak ku bon nu mu lay noyyi noonu la ànd ak borom itte di yëkkatee itte nit noonu la ànd ak ku ñàkk itte di ñàkk ñàkk nekk itte yéen tamit wax ne ki ngay toogal mu doon ku baax ak jataayoo ku bon mu ngi mel ne eh, nga jataayoo ku yor laf lañ di ko jaay ak kii ëpp ab taal ki yor laf lañ di ko jaay. nga toog ak moom moo ku baax mu ni kooku benn nga jënd jëlal ko rek wala mu may boo jëndul mayu de xet nga ciy génn di agsi ci yow mënu la ko xet fokk nga am xet bi nga am fokk nga moom la na jël waaye nag mu ne kii hôpital bi nag benn mu lakk sa yére mu lakk sa yaram bu lëkku sa yére lëkku sa yaram am na loolu mënu la ko te mënu la see musal muy tàngoor tàngoor tàngoor fokk nga si yow moo tax buy booy toog baax booy ut ànd na ànd la ku baax ndax fokk mu amal ngeen booy moytu moytu la ànd ak bon ndax fokk mu lor boo ko yëg boo ko yëg jaww nag dafa am jeexit mooy jaw ji nit ki dund dafa am lu muy def ci nit ki ndax am na benn boo xam ni dafa rey juróom-ñeent fukki nit juróom-ñeent loolu laaj ku ëpp xam-xam ci kaw suuf ñu tegtal ko benn laajte boo xam ne bari na lu muy jàmm yàlla ñu jàpp naa ne loolu xam waaye day jàmm yàlla amul xam mu dem ci moom ni ko damaa lay juróom ñeent fukki bakkan juróom-ñeent ndax su ma tuub yàlla dana jege mu ko jege kenn du la jege mu ray ko mot lewu jëfe dal dem ba mu demee laajaat ni ko ëpp xam-xam ci kaw suuf ñu tegtal ko benn borom xam-xam mu dem ci ne ko damaa ray te ñu ne bakkan ndax su ma jégalu yàlla dana jege mu ne ah waaw kuy dox si dégg ak jég jégalu yàlla jégalu yàlla li fi nit kaa ngi jégalu yàlla dana jege loolu ne ko nag suuf see nekk moo baax da nga fay jógee comme ni ñu mën a fay da nga fay jógee dem ban sànq nit ñu baax fa nekk nga ànd ak ñoom di jaamu yàlla boo ko defee yàlla dana jege mu dem ba ci yoon bi yàlla jël rob bi mu faatu malaaka yërmaande daw ñëw malaaka yi mbugal yi daw ñëw ñu jëkkante ko kenn ku ne ni fee la jëm malaaka yi mbugal yi ni kii mës def dara lu baax kon sawar na malaaka yërmaande yéen déedéet kii xol bu sell la jubloo ci yàlla fas yéene tuub kon àjjana la bañ ko ko ci yàlla yebal jëm mu ñëw attire leen loolu nag malaaka yi mbugal kii mës na baax mu ngi nii de maa ngi ne kii xol bu sell la àndal jëm ci yàlla kon normalement ñu ko jëlee mu ne leen da ngeen di natt diggante fa mu dëkk bu ba mu jógee ak dëkk ba mu jëm ci gën a jege ni mu bon ba ñu at at man ko nattee mu gën jegee fa mu jëm ci benn safar képp ñu boole ko nga xam yéen maa yàlla kon toujours yërmande lu bëgg ci doomu aadama moom la na li nga jublu nag bokkut ak ndaje yii di xew nii wala nga ànd ak nit ki eh, ci ab société bu ngeen di liggéey mbaa nga eh, ànd ak moom di tukki ci ab avion mbaa oto mbaa dara déedéet waxuma àndoo tukki rek àndoo bi ñu jublu mooy seet koy ànd koy jëflanteel jël ay jikko muy jël say jikko waaye bu dee façon àndandoo yooyu moom da ngay la da nga ca man la nga def ko mooy jëndante ak jaayante ak ànd tukki wala jàngandoo wala nangam da nga si waaye ànd tiir nag lañ wax ne da ngay wut koo xamante ni bu waxee mu jëfee mu tëjal la moo tax dund fii ci Europe gii ci Occident bu fekkee mën nañoo sos environnement mel nii boo xam ni suñ diine du rëcc suñ culture suñ aada dara du ci rëcc. loolu wàññiwul dara ñun di ko fi dund kuñ ci man a xëcc xëcc lañu kuñ ci mën a xëccee ñun ñu mësatu suñu bopp fekk mën naa nekk loolu dañ jafe waaye bu nu wóoree ne environnement bi lu mën ci nekk muy jaxasoo bu ñu gëmul dara képp fa nekk te mën nañ laa yóbbu ci ak képp loolu nga defi toog dem ñi dégg ko parce que am tuuti at bi ñàkk àllaaxira day def te sëriñ bi li wax mooy laa tashtari yaa fata man baaxa nuuran bét bi jaar fa sa yan jëm te soowu Afrique gee ñu nekk muy Sénégal la ko wër ay commerçant yu am pas-pas képp ñoo fa andi dinañ dina ja dugeewu fa ci ay ngaan dugeewu fa ci xeer waaye commerçant yi ñooy bi indaale ay jikko wane waale moo tax nit ñi xeewoon ba dugg dina kon moo tax nit ki jóg di wut si xam-xam fii ci Europe gi waaw mu ñëw di wut si alal lu mën a doon rek na yor pas-pasam te dëggu ci rek mën na mën na ci yób mën na liggéey dina waaye nag ki may wax ni léegi bu mënta fexe ba kenn yaa environnement bi lu leen liggéey mooy ki amul étude ju kawe étude ju kawe dëgg dëgg ku ko am dara mënu ko sax mu def du dëggal dafay dog ngir dafay dog lëf nga lëf du ko dog day cor lëfit daal di wax ne lëf du ko cor mu def du dëggal moom mooy tuus dara bu yàlla dara du ko day ne ak ak ñoom seen daal kon bu ñu doon andi misaal ci borom itte yu kawe yi di ci andi ay échantillon dañuy wax ni ka ci njëkk mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla matal diine ci ay loxom mu nekkoon di ku daan nekk ci activité bu jëppal bu dégg ci suba ngoon bañ di ko fekk fi mu nekk saa bu masaan dégg ne ay noon ña nga barab sànq di ko fexeel day jug takk ab mu fekk leen fa nga ñuy jóg loolu mooy itte yonent bi de nekk xare na ñaar fukki xare ak juróom-ñaar yoo xam ne dem na moom ci jëmmi boppam limu xare yi ñu xare te demut mi ngi toll ci ñeent fukk ak juróom saxaaba yi doon ci moom itte jo Abu xam nañ ko ndax taxawoo ki mu taxawal lépp ginnaaw yonent sans loolu itte ko Omar kenn nattali Osman Ali waaye a immatul arbaa ñeent borom ñeenti yi nga xam saa boo tuddee islam sa xel lañ ñoom imam Malik Shaafi'i Abu Hanifa Ahmad loolu itte moo leen ko may ne doo ak yaafus sëriñ tasawuf yi si jiwaat ci la ñu àgg fi ñu àgg bu bu ñuy jàngalee itte ndax diggante mu yonte mat na junni at nag itte ju lu ñu mën a fi ñebe bi ni bi yonente bi ñëwee feeñ ko ànd ak ahlu badar ni ko loo bëgg dañu ko ñi nga ànd ci laa bëgg bokk bon ngi ci kaw dëgg day seet seet loo xam ne nit ñi ñàkk itti ñëpp dañuy jàpp loolu dafa jaww jàpp mu say moom mu taxaw ne war naa am war naa am rek loolu mooy itti kaw itti kaw fekk da nga jàpp ne jomb na jàpp ne mooy ci ahlu badar la bëgg bokk te pourtant ci ba suñu borom may ko mu ne shahida lillahu bi anni waahidu min ahli badr yàlla seere na ni kenn laa ci ëllëg xaafu ni ñu jaay mu yar ci itte jooju nag magi murid ak doomi boppam yëpp tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci Cheikh Mouhamad al Moustapha ñëpp itte ju kawe bi suñu laal naa fa ci wér kenn xam ko xam nga ba am juróom ñett fukki teg ba noppi nam daan doxee saa si wu dara loolu itte ju kawe la teg Serigne Saliou bopp ne ba ñaari dem na ba yootu juróom-ñeent fukki at mbaa ginnaaw bi ma juróom-ñeent fukki at la jënd deux cent vingt tracteurs yëpp yéen a bay suuf si est-ce que daf ko bay ngir adduna it tëju kawe ci ñaari fan ñetti ñeenti juróom juróom-benn dañ koy wut ba ngi daje su ko deux cent ngir am yéenay bay suuf si loolu mooy it tëju kawe mu daan soññ lool ba ne yi tarbiwoo ci yëpp yokk seen it ni leen sa law di ba may nekk Thiès daa daanaa julli fajar ba noppi génn toog ci buntu waaye nit ñi may romb ñi di daw ñi di waax yii saa mu ni nit ñi am nañu yàq mi sax ba jël seen doogu mënu duñ toog tanto seen nekk dañ koy jël di lekk di mun leen sa ñooñu dem mu ne adduna képp lañu wut yéen ñii kon farlu bu ñooñu farlu rek war ngeen ko dolli dolli seen far te loolu mooy sànni bis yi nga xam ne sànni bi liggéey rek nga xam ne mu def loolu sandwich turu benn tubaab bi ñuy wax John sandwich John sandwich moomu Angleterre la ko dafa doon ku daan ñi nañ dafa daan carte rek ba ko gudd a jóg ci taabal ji mujj wax nañ ko xaral doon rek mu ko lekk rek ñii ne déedéet dafa am été ci liggéey ba amul jëm toog liggéey mu bëgg ñu xar noonu jox ko muy dox dem ñu dem ba bu ñu nee sandwich xëy na dem ci mburu moom ñu xar waaye fekk turu nit la nit ko amul été dara bu ñor rek man ne lu muy jàngee ci loolu yi seen jàngee ba dem ba am juróom ñetti fukki at ñetti junni seen bay fas seen loolu lan lañ ci jàngee ni itti yu kawe la te njàngale itti yu waaye danañ ci jàngee ak déggam diine ci ne diine yemul rek ci kàbbar julli mbaa nga woor jël jukki bi jàng mbaa nga yor di wér waaye liggéey ak jàmm loolu la ciy dégg ndax yoon bi dafa ku ci yoroon jëmbat di ko wàññi jëmbat bis penc taxaw nii boo mënee fexe ba gaaw jëmbat ko balaa bis penc taxaw defal ndax ab yoon la rek fay yàlla da cay fekk kon dégg gum dégg hadis boobu moo tax must décourage te buñ xoolee soloot na ba soloot na jeex li fi taxaw lépp borom ittee ko yof taxawal ala qadri ahli al azmi tati al azaimu wa tati ala qadri al kiram al makarim وتصغر في عين الصغار في عين في عين الكبار كبارها وتكبر في عين الصغار صغارها mu ne léegi adduna mbir yu rëy yi mi ngi ñëwee si kam ni nit ñu rëy ñu toll wax nag da di nag nit ku tuuti lu tuuti day rëy ci moom waaye nit ku rëy lu rëy day tuuti ci moom borom itte yu kawe dëgg yëpp du saytuwaat du xool wax ji jëf ji mu war a jëf tey mu di ko bàyyi ba suuf wala li nga war a def ci suba nga bàyyi ko ngoon wala li nga war a def ci suba nga bàyyi ko ginnaaw suba loolu borom étude yooyu def borom étude yu kaw yi jamono bu ne heure bi mu toll daf koy fixé fas yéene daal du jeex ndax maa ma baa faata wala mu amalu xaybun wala ka saamatu la ca àdduna lu lu la raw raw li ñëw bu ñëw tay képp ku cab tay moo tax foog nga fonk tay jooju yi ñi am état yu kaw yi dañuy dund wax ji yante doo xam ne juróom a ngi ni nga xam ne na leen ko respecté ndax juróom a ngi ñëw ci ginnaaw mooy booy dund na nga exploité dund gi ndax dee ngi boo amee wér góor-góorlu laaw la ci lu baax ndax wér dee ngi boo feexee am jot fexeel ba gaaw exploité bi ndax ñàkk jot a ñëw boo doonee ndaw fexeel ba exploité bi ndax ak mag ñëw boo adeem koom gaawal jëriñu ci ndax ñàkk ngi am koom dafa damanteeg ni ci kaw yoon benn nit ki romb ko jàll mbaa mu romb ko jàll am koom dafa gaaw koom nit ki lu mu wobaloo benn mu dee bàyyi ko mbaa alal dee bàyyi ko suñ tool yi dañu wax ne lu fi nit am lu rëy rëy bu nelawee fàtte ko bu dee ñàkk. lu boo nelawee fàtte ko moo tax suñu sañoon daan def bu ma sànni jóg sax nga bëgg ko jàpp mu ak télé kenn du ko gàttal na koy def parce que télé moom muy ñëw ak télé kenn ko moo tax fonk waxtu am na ci borom xam yu jëkk dañoo fonk waxtu ba am na ci benn borom xam boo xam na di liir di liir di liir soxna si ñëw ni ko léegi reer bi moom xaaratu si muy liir mu dem mu jàll soos bi waaye ni ko reer bi moom xaaratu si soos dem ba gëm leen si ñëw indi reer bi jël kudd gi di ko ko leel ba mu ko leelee ba mu lekk ba noppi mu ba mu lekk ba noppi mu jël ndox jox ko mu galax ko mu toll woon rek ci waxtu ñu mu ñore ci borom xam-xam yi may wax ne am na ci ñenn ci borom xam-xam yi ñoo xam ne daanañ gëstu xam-xam ba fàggu ci biir ko am ci ko day gëstu di liir ba sonn si reer bi mu ne ko mu ci mu ñëwaat ni ko daal mu di ko mu ne sa toog bu indi reer bi jël kudd bi di ko fa leer ba mu mu jël ndox jox ko mu gàllax bi mu dem tëdd ba mu tëddee ba fajar mu mu jóg ni ko andil ma reer ngir itte ju jum jox la nekkoon am na ci ñoo xam ne joxoon nañ itte waxtu waxtu ba àgg ci diir bi ñu dugg ci bi sax ñàkk a continuer li ñu doon def ak yàq lañ ko jàpp ba fañ toll woon ci ab biir dañuy jox nit mu tolloog ñoom ci wetu woon a yëkkati kàddu ci kaw ñu concentré déglu mu wax ñoom bu dee ci wàllu jaamu yàlla yi itte la nit di def foog nit nit ki dox itte ba fu ci ak mu jaag man ne am na ci nit yu njëkk ña saxaaba yi ak sëriñ si njëkk ñoo xam ne bi set nañ wàcc ak kàmmi ci alxam bi am ñoo xam daan ñu wàcce ñaari kàmmi ñoo xam dañu wàcce ñetti kàmmi am ñoo xam ne ñeenti kàmmi ci am ñoo xam daan ñu wàcce ba juróom-ñetti kàmmi ci daan ñu wàcce ba loolu itte ju kawe lay teg itte ju dafa dàqoon ak topp bakkan dafa dàqoon ak topp bakkan moo tax sëñ bi ne al akla xalbi wal manaama yaa muri wala tuxaalit alladina jiitu mooy na nga néewal sa lekk yow murid bi néewal say nelaw néewal sa jaxasoo ci lu amul njëkk kon euh, xam ittee bon bi ci kaw dana yokk ittee am na ñaari nit ñoo xam ne dañoo àndoon ne dañuy wuti premier wu ci yàlla ñu wax ni ñu dem ba fekk nitu yàlla koo xam ne liggéey ci cere cere lay def ñu ne ko dañoo bëggoon gërëm yàlla bëggoon naa la yow liggéey mun leen ci lii laay rek bismillah kenn ki di taxani matt mi kenn ki di xamu bi sëriñ bi di liggéey cere waaye bañ ko defee dérëb bu gàtt kenn ki topp sëriñ bi ne ko dama bëgg nga jox ma serlo nga moo xam ne naa ci mën a amee dama bëgg ndax dañuy bëgg lépp day neex mu ne ko damay bañ su ma la ko joxee nga bañ koo ànd mu ne ko jox ma ko ba mu ko sonalee mu wax ki mu àndoo ne ko ndax ndax ma jox ko ko man waaw jox ko bu fekkee sa xel na ko sëñ bi yëkkati seeru bi jox ko ko ñetti fan la fi amaat ci at bi faat waaye jël seeru moom daal dem ba mu dem ne am pers bu am fàttu yëpp mu am ñaar muy nangu nit ñi fàkku ci ka ca des moom des fa ak pas-pasam fas yéene liggéeyal sëriñ bi si njaboot gi fi bàyyi sëriñ bàyyi na fi soxnaam ak ñaari doom yu jigéen ak benn doom bu góor mu continuer di liggéey ci cere yooyu di leen ci dundal di leen ci dundal ba soxna si rakki sëriñ bi takk ko dund boobu wàcc muy liggéey di leen ci dundal ba ñaari doom yu jigéen yi sëy seen dund wàcc mu continué ba sëñ ba doomu góor ji fa nekkoon des dem dem gàddaay mu dem dem soow dëkk ji mu daal di xam ne tam wàcc na mu jógee dem ci borom sëñ bi di ko tàggu ba mu ba ci borom sëñ bi toog fi suba ba yoor yoor ba mu jógee bëgg a dem cofeer bi jàpp bu mën ci dem mu départ toog dem ba digg bëccëg mu dem dem dem mën ci dem mu dem ba ngoor dem ba fanaan fa bés wecc ba mu xëyee dem nag la dajee xadir mu yëkkati selo jox ko ni ko selu mu dem ba ci yoon lu romb ab dëkk boo xam ne dañuy taxan mat di taxan di dajal tax mun leen ko doon ñu ngi defee am gox yoo xam njaaxum boo xam dañu ko war a bay lakk am mun leen ko doon ñu won kooku muy mbokkam moom ngay laajin séddoo ko ba ñu joxante mun moom nee na xam ne naa ko waaye mun xaal lii mu nekk tam dafa nekk moom ma laaj leen waaw loolu am na fii mu leen ah dama leen wax mu ne ko dama leen wax sama dëgg ñeen ma ab yëfal la moom mu ne ko loolu leen wax mu wax dama wax mun leen def leen daal bu leen ko def dara ma gis bóot bu leen ko yàlla ñu ko bóot mu dem ci buur bi ne ko yow yaa joxe ndigal ñu rey diw mu ne ko waaw ndax borom xam-xam ñoo àtte ni liñ ko war rey ndax dafa wax dafa wax njaaxum boo xam daal rey dafa dañ ko mu ne bool bi nag dinaa mu ne ko mu ne ko ku ne suñu boole na ak ñett téeméeri malaayika ak juróom-benn fukk ñu di ko gàtt gis nga bakkan boobu boo waxee ba rey ko malaaka yooyu fu ñu toll di tudd sa ñaawteef boobu nga def te saa bu ñu ko sikkaree dañ la koy bindal mu doon ñaawteef bu waat mu la waat ndax àttan nga ñëw lu toll nii mu ne ma def naa borom xam-xam ñëwaat rek ngeen ko def ñu bon borom xam yi yow borom xam yi mënuñ leen léegi lu tax ñu ba ko rey ñu ne ko dafa wax loo xam ne ak kéefar dañ ko war def mun leen wax ñu leeral ko mun leen bu leen gaawtu da ngeen koy wax bu ñëw bu fekkee li mu wax zahir si tekki na nga ak yëf li ñu war def ngeen laaj ko lan lay si jublu lan si jublu bu dëppoo ak ak kaw ngeen rek bu dëppoo wut nag ngeen ngeen xam ne day yéen jaawal ñu ne ko loolu dafa daal di wooyee borom wooyee waaye bu ñëw ñu ne ko lii nga wax la ci jublu mu wax lan si jublu mu doon lu leer lu ñu mën a dégg nan la ko sawee moom ba yàkkanti woon pour war leen la léegi yoonu yàlla itte ji kawe laaj ak ñàkk a yàkkanti moo tax sëriñ bi dafa wax ne wala takun lil fatxi dasti'jaal li annahu al mahiidu lirrijaal ak fatxu te mooy dem ba mbooloo mi fàq mi si la ngay ñaan ñu nangu ñu di ñaan loolu lépp ëpp naa yàkkamti ci desewul loxo ndax loolu dafa mel ni mbërëg ci nitu yàlla daf lay gàll kon ñu daanee ne rek wax ni li ñuy jaaxle mooy wax ni borom itte yu kawe yi di leen jàngal dina may itte di leen xam dina may itte bu nga xamit nga xam fi nga toll yow ndax yow bu fekkee da ngaa xëy di jàng juróomi si par ba jàpp ni yow naaw képpal bis ñun la am na Quran wàcc ñetti la sat te nag am na cër yu kawe yoo xam ne muy cëru adduna cëru àll am na cër yu kawe yoo xam ne bu nit àgg ñett yi mënta ñàkk mënta mënu fokk mu am pas-pas bu fokk mu am itte ju fokk mu farlu fokk mu am jom yii moom pour nga am martaba bu kawe moo xam mbiru adduna la moo xam mbiru àllaaxira fokk nga ñeenti liggéey da am pas-pas yi da am itte da nga farlu da nga mën am jom dañuy wax ànd Afrique bi ñoo fi demee ñaari mbir nga fekk ñaar gaynde gi fa gaynde gi fa nekk ak kéwél gaynde gi bu mënti daw lool du dund kéwél bi bu mënti daw lool du mucc kon foo mën a toll rek xel moom ñu ko soxla ci mooy graine bi xëy na ñu ko soxla ci yow mooy kër bi dañoo soxla ci yow dañoo soxla ci yow dañoo soxla ci yow xel bi gaynde gi dañoo soxla ci moom aw xel kéwél ci ndox gaynde gi bu mënti daaw lool du dugg kéwél bi bu mënti daaw lool du mucc kon foo mën a toll ci àdduna rek aw aw xel lañ soxla xel bi bu mu taxaw moo ko ci ma daaneel la xisa boo xam ne seen saxu seen sale moo ko defal yàggul nee na seen laata koo xam seen laata nee na nee na seen laata dañ ko seen yoon si def ko andi ko ndax seetee nga sa bàyyi Thierno siyaare ji ba mu ne la bay bi déedéet mun na na nga dem siyaare ji bu ma siyaare ji borom daal mu ne ko ma ko tàggoo bay dem mu ne ma mën naa laa jox sax mën naa laa jox fas lu ne mën naa la ko waaye nag du ma la jox loolu li ma la jox di lépp lu sa baay am moo ko ko may te loolu di benn baax képp muy lan muy jom jom daal mooy li nga xam ne bu sa baay ak moo ko àggale jox naa la baat boobu nekk gànnaay la jërëjëf asalaamaaleykum